dundal dundal ba fekk suñu njëriñ yaay happy birthday to you léegi sa bés la yaay yaay yaay yaay yaay léegi sa la yaay yaay happy birthday birthday, I, yeah, happy birthday to you. Dundel, dundel, dundel, feliz a birthday, I, yeah, joyeux anniversaire. Eh, yeah, joyeux anniversaire. Eh, yeah, joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Eh, yeah, joyeux anniversaire. Et spécialement à ma maman qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc euh, c'est euh, ce jour-là spécial pour moi. Donc euh, euh j'ai euh, j'ai pas de cadeau énorme pour euh, voilà pour, pour te donner ça. Bogulo Sakmaway. Donc ko def rek pour doon fos ci guitare rek bu bu way nag dañu woon lu ñu doon def rek génn euh, ci ci gàttal donc yaa ñu ngi lay ñaan nga dund ba dara sans homme sans homme yar nga ñu yaram nga ñu def nga suñu diine def nga suñu tekki di la ñaanal yàlla vraiment bàyyi la suñu kanam bu baax a baax yokk ñaan ah, di la ñaanal vraiment di la ñaanal bu gudd fan ah, fekk suñu njëriñ yaa yëpp ñu fekk seen